malentendu rek moo am waaw peut-être malentendu moo am rek mais man bëgguma di sori ci loolu parce que yàlla dafa dogal su ma waxee mën naa vexé su ma mag Papa Diouf te su waxee tamit mën naa vexé ki nga xamante ni mooy euh, propriétaire boîte bi et man dañ ma fekk sama kër rek ne ma dañu bëgg nga jouer est-ce que est-ce que baax na waaw moo tax sax wax ci da ngay mën wax ci sax mën na nëw leneen non non non non wa waaw waaye waaye man deewuma ci yoon man deewuma police porté wu ma plainte deewuma police porté wu ma plainte sama yoon neewu ci man kenn porté wu ma plainte mënuñu maa porté plainte personne ne peut diriger une plainte envers ma personne non non bari mu ni ñoo jël ci photo wàll yi def ko tey ci seen page bëgg ma joué leen am na polémique dem naa feneen joué ji samedi boobu man maa joué. damay joué Vogue baaramundi su ubbee waaye gën yi baaramundi parce que dañ ko tëj dafa nekk ci dañ ko tëj c'est c'est su ma amee feeling su ma amee su ma amee feeling joué feneen ma dem joué feneen waaw su ma amee yëg-yëgu nag xool fu mel ni benn place mu jënd ko mu jënd ko. <laughs> waa nag nag vraiment nag loolu nag moom dafay metti ci man. dafay métti ci man loolu ubbi boîte boobu doo la waxtaan bu bu indi boobu parce que sama gars yi da ngay tax Youssou merati fi ah gars yi merati fi ah ah waay yow waay yow bàyyi loolu ah waaw waaw structure ba mën a ubbi mënu jaay sàngara man bañ naa ko ba duma def coproduction dama lay wax ne la damay jouer ci sa boîte de nuit entrée yi maa moom la nga fay jaay ci naan sama yoon ñëw ci bugguma ko tey bugguma ko ëllëg te yàlla dimbali na ma duma ko bëgg bu sob yàlla na ma yàlla bàyyi fois moom du ma ko bëgg ba keroog mooy sànq waaw du ma jël xaalis boobu alors bi nga xamante ni attan naa ko nag muy entrée yi dinaa ko jël <laughs> waaw boobu antan naa ko sama conscience antan na ko <laughs> waaw consommation antalu ma ko wax dëgg yàlla waaw d'accord naa waaye man je préfère man tam ma jël sama bu sama bunt rek hmm. déedéet man am na koy nekk ci sama bunt ku fay toog xaalisu bi yi dina ko jël teg ko na rek su paree mu ne lii la waali moom mu dem waaw Hmm, projet deux mille vingt trois yi bëri na waaye Sidaat nga dëkk bi dañuy kojaatee <laughs> te dañuy kojaatee gaa koj ma sax da ngay mën dafay xaw a metti parce que damaa pare ah damaa pare ah <laughs> waaw ñu yokk affaire bi ñu ñu xool daal ñu xool maa ngi xool xam am na y' a plein de waaw euh, album international bi dina génn dina jugee ci kaw wàcc suuf bu soobee yàlla mooy lan loolu. fii. waaw daf maa jàngal àdduna. ma Akon Akon ndeysaan c'est un grand boo xamante ni saa bu ñëwee fii même bu dee benn yoon dinañ ko déggante via Mbacké ah. Eh, moo tax ma ne la gis nga Sénégal dafa naqaree waxee da ngay waxee fii rek ñu ñu déplacé ko feneen waa xaaral rek bi may wax ci wax Akon sama papa laa njëkkee ci sama papa laa njëkkee daal ci Akon dama ne sama man soirée bi ma njëkk a joué daf maa loué matériel loué ma boîte am loué ma ay musicien teg ci ne Akon bi ma ñëwee daf may demal nga liggéey ci kanam liggéey la laaj. daf ma def dañ ma dañ ma jàngal da dégg ma dañ ma jàngal àdduna en étant jeune xale bu ndaw da ngay fugg mais actuellement fi nga toll di da nga xam ni kii moo la jàngal àdduna moo la teg ci yoon def la jàngal àdduna parce que bàyyiwu la nga yaafus loolu ñu wax noonu yokk na ci man quatre-vingts pour cent de job boo xamante ne jour ma génnee foofu je me suis dit écoute je vais plus jamais demander service à quiconque waaw non moo tax ma ne la daf ma yokk jom daf ma yokk jom waaw dama ne dinaa dem ba jamono muy gis may way ak ñu ñu mag non non pas ñu ko raw ah, man Sénégalais ma nangu ko raw bàyyi loolu waay tamit nag yow bu loolu waay <laughs> <laughs> non non te ma foofu dama ne dinaa dem ba mu briller mu xam ne gis nga ni li ma waxoon maa ngi ci te li li maa ngi ci te loolu école defal moo ko maa ngi defal sama bopp xaar ma fëgg sam buntu ak koo mën a doon la ma ne koo mën a doon artiste buy xaar ma fëgg sa buntu ne la dimbali wala defal ma lii doo ma gis dégg góoma xanaa su weesoo ñu seq liggéey war a liggéey pour réew mi dinaa la woo ne la réew mi kat lii la war a defal lan nga ci xalaat nga wax ma sa avis ñu defandoo ko mais man ma ñëw demander artiste ndimbal moo tax damay liggéey comme dof bugguma ku ma ketal ëllëg bugguma ku ma ñaanal njekk ëllëg bugguma lu ñàkk fayda bugguma dugg fenn di fa manqué hmm. meluma noonu Je suis bien. Je suis bien. Je vis bien. Ouais. Je vis bien. Machallah. Alors, euh, j'ai pas de business. Sérieusement, j'ai pas de business. À part mes contrats de pub, tout ça là. Il y a rien qui a mon bénéfice. ku ma xool xam nga ci dignité ak ful la ak yow rek yàlla gis nga Sidath man je pense bi may bi may njëkk a jooy sur scène c'était pour les familles se rencontrent famille yi ñu dajee se ah. ku ne xam ni ku bëgg dajale la et en moment donné en voulant trop dajale trop defar da ngay da ngay day ñàkk fayda wala da afa am intérêt bu ne ci ginnaaw alors que du loolu yàlla la baaxoo nga baax donc dëgg la je peux avoir mal mais chaque fois suma xol moom mooy tooñ ak bëgg déglu kàddu ak bëgg yaru lii nag dinañ ko yaatal bés et je préfère su ma ko yaatal les membres ñi nga xamante ni même bu dee benn nit sax ah fekkee na ko mu mën a toog ñu waxtaan parce que je veux pas parler après ñu déplacer samay propos yóbbu ko feneen foo xamante ni àggu fa ah donc waaw je sais mais boo mais boo mais wa mais mais mais Wally Wally aime tout le monde je te promets la donne état d'esprit avec vous le